appui bi VAR la quoi. waaw waaw damaa bëgg xool. jëlee bi da ngaa bëgg a xool. kan moo def 4 appui bi. kan moo def 4 appui yow. waaw waaw waaw 4 appui lañ ma ñàkkalee quoi. ah xaay lan jox victoire. wala Mbaye Diaw lan mu ngi woon fii ba léegi moom la Diaw doon indi. wax yow moo taxaw na le. anamu. moo taxaw na le. moo taxaw na le. wol ñu Diaw wol ñu Diaw. Mbaye Diaw bële Alaaji Diaw Alaaji Diaw Malick ah sëñ bi nag yow it nag. duñ la ko mën a joxe noonu rek duñ la ko mën a joxe jaw jaw nag moom it bu muy ñëw moom booy bi jaw na rek non booy bi la àndal na booy bi ñëw daa mel na Modou Lo day de waaw Modou mooy waaj tiis mooy waaj tiis moo tax ma bëggoon di ñëw waa combat boobu mooy combat buur que buur moo nekk noonu moom buur du bàyyi ñu yëkkati ko drapeau du parrain waaw Modou Lo mooy waaj a tuus waaye spécial bi mi ngi ci diggu géew bi buur a ngi noonu moom lañ ko tuddee di sunu naataango nekk ci DTV di nit ku baax e eh, maye ma mbër bi mu jàll waaw na ñëw booy joxal booy du mu wax. loo bëgg wax. et eh, bon booy. réalisateur est-ce na temps danoo nekk ci tuus bàyyil ba tuus bi pare. waaw waaw. kon ñu xool yaakaar naa ni bu dee tuus tuus mu neex ak ndax ndax sawar ñëw na. Hmm. yaakaar naa ni cawarte feeñ na de. waa parcelle dafa mel ni ñoom ñëpp ñëw na Papa Sow ñoom Franc ba pare xam nga békay combat Modou Lo ak ki nga xam ne moom moo di Ama Baldé waaw Ama Baldé waaye bii boo xoolee Modou Lo moo feesal stade loolu moo ma jaaxal. moo ma jaaxal tey. te booy ñaan dëkk Pikine. ah 100 pour 100 Pikine bi waroon na mën a feeñ. waaw xaw ma lu xew nag. yaakaar naa ni tuus na suus mu neex xale bi di ko tëgal tëgal la tina ko lu neex. mooy Moussa Yacine Mbaye Moussa Yacine. xale bi bu jugee Ndakaaru jub. baj géwél bu mag la. baj géwél la. te buy ñëw ay sabar la indi. mooy li ma lay wax nag mbër buur la. mbër buur la mm. baj géwél lay àndal. baj géwél lay àndal te da nga am loolu xel te peeg nees ba aas bi kaay. waaw xale bii di nga xam ne Moussa Yacine Mbaye buy ñëw. waaw ay sabar dañ koy foor. Mm. préparé ko. boo déggee nii nga xam ne rythme baa ngay dawee. Hmm. nga xam ne Modou Lo ñu ngi tuusal. ah non ñu tuusal waaye ah bu ñu demee ba ci kanam. Hmm. waaw ah <laughs> xale bi di ko tuus ba ca biir ñu baara waaw du mën a crédible Sorano la def. waaw Sorano nii. ci ci Youssou Dieng. bi waaw. waaye sa xarit tamit Youssou Ndour. Ah? bi Youssou Ndour. Youssou Ndour place du souvenir. waaw waaw waaw. Youssou Ndour mi ngi place du souvenir. Lamine <laughs> Eh, Modou Lo il est confiant. waa grand yi fecc. Mm-hmm. ah. da ngay xool Modou Lo rek neex ji rek. waaw waaw. waaw tey jii. Rock Énergie yëpp génn fecc. wallaay ndeysaan. age begaay ajurat maam Diarra Fam honorable député. ndeysaan. nee na mi ngi lay nuyu. sunu xarit. moo ko wax waaw Modou Lo gi noonu tuuf na ba ñu gërëm encore les sponsors Apex ONAS Apex di nuyu bu baax le directeur général Abdoulaye Baldé Mamour Diallo ONAS ñu nuyu bu baax bu duggee di nu nuyu Bamba Fall moom it ñu koy nuyu bu di nuyu waa ONAS yëpp mbokk yi dañuy dellu si waat HBK wan XBET tamit liggéey na ci liggéey bu am solo. XBET. ak KPay. ak KPay. transfert d'argent bi nga xam ne suñu moomeel la. ak ak Jador. Jador sunu sunu Jador. ak Alip ndeysaan AIBD Garaajo dafa am benn combat boo xam ne booy bi nee na daf koo jox. danoo dem vaar ban combat la Mbaye Ndiaw ak xaay. ak xaay euh, ak xaay. Mbaye Ndiaw ak xaay ñu xool leen. buñ ko mënee gis waa Pape Sarr ngi noonu yëkkati drapeau Pikine bi moom it war a wane boppam léegi bu waa Rock Énergie tuusee ba pare hmm. ñu ngi tëgg ba léegi ñoom xare ña nga fa fecc xale yaa ngi fecc rek ñëw ñëwul kay ñun dañuy yëgale sunu émission kaay toog Alaaji Jaw ñëwal boog Alaaji Jaw cëm. ñu ngi lay delloo sunu xarit sunu xarit. buur a ngi nii. wax ko ci micro bi. asalaamaaleykum mbokki àdduna mbokki Sénégal. papa Bekay Mbaye ma faaliku ma naa tëx ba. nan ma jël en direct. Eh, parce que li may wax nii su leeg sargaan moo ma yóbbante. ku la yónni. Gaston Xali Mbeng bàyyi ma kan. waaw mu ne la. le Don de l'arène. Dabba. nee na. Dabba. nekku fi waaye mel na ne mu ngi ndax li ko def mooy. yaa jàppale ma kan doomam ji. waaw Bécaye Mbaye yaa gore. Bécaye Mbaye yaa baax. waaye xaalis Bécaye yaa am coloré. Gaston Mbengue nee na mu ngi lay ñaanal yàlla ci barki yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nga bëgg Sénégal yaa xam yàlla na la ko defal. amiin yaa rabbal aalamiin kenn jëppiwu la. dëgg la ñoo dégg lu ñaaw ñu ne Gaston ñu ko wax. waaw te sa puso nga yor di xool foo ko teg nga ñaw. dëgg la allah yor saw dal ak sa lamiñ macha allah lu tilim nga fóot. li ko def nag mooy. ma faali ko mën naa ma tax ba sama balaa ma sa dégg fukki bala ñaar day tàkk. waaw kenn du ko jërëjëf koo ci laaj mun la maa ngi lay sàmm ku ne ma teg ndaat. ak bis maa ngi ñaan yàlla Sénégal. waaw yàlla na fi yàlla def jàmm. ma leen di bonne et heureuse année. jërëjëf di nuyu Cheikh Sarr waaye Papa Bekay. man géwal laa te ku ma defal lu baax moo ko. dëgg la Momadou Lamine Diallo. waaw ren jii no deux mille vingt trois bi ci la ma yóbbu Màkka woon ma rasul laay. nga def ci lu am solo ak Fadam. maa ngi ñaan daal ci barke yonent Yàlla Muhammad. yal na ko yàlla defal jàmm. Sénégal gii. 2024 yal na président moom la jàll doon président de la république <laughs> jërëjëf. ku nekk ak ngay wax li nga bëgg. waaye maa ngi nuyu waa sa xarit. waaw sa frère. waaw Gaston Mbengue sant na la. waaw gërëm na la nee na gis na ne nga jàppale Makan. ak ñun ñi nga xam ne si ñoo ànd ak Makan topp ci ginnaaw Makan yal na yàlla defal la jàmm Cheikh Sarr jërëjëf. jërëjëf ñu ngi nuyu baax a baax Cheikh Sarr bu Aydara ca kër Momar Sarr. waaw Cheikh Sarr bu nga xam ni fa laa juddoo yaroo fa màggee fa mu ñuy suivre jamono ji waaw waaye xaaj xaaj Bekaay. waaw Tamba waaw. dama amati gàmm gu mag rek. waaw. muy gàmmu Serigne Mansour Sarr bu Buudi saaxo waaw. waaw muy am samedi bi incha allah 6 janvier ca di Sakho di doom ci Serigne Mansour Sarr. di sët ci Cheikh Seydi Hadj waaye di sët ci Serigne Abbas kon diggante Kër Momar Sarr jàpp Kër Momar Sarr ba gànket gent gànket bala. gàmm gu mag googu di am samedi bi incha allah ca Boury Sakho woo nañ ci ñëpp ci ndigaluk xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool. mu yàgg noo wéttali HBK. waaw jërëjëf loolu lu am solo la.